mbokki seetaankat yi yéen ñi seetaan ci wasaare société tey ñu ngi fii ci maris bu ngeen xoolee environnement bi gis li nekk sama ginnaaw ngeen xam ne ñu ngi ci maris ñan la ñu seet si mooy liggéeykat yi ouvrier yi dëggi dëggi ouvrier yi nga xam ne ay mécanicien lañ saa yu méttee da nga leen di gis saa yu neex danga leen di gis ñu nekk ci zone yëpp ah ñoom la ñu seet si tey ci maris fas yéene waxtaan ak ñoom ci seen liggéey ci xew-xew bi déguerpissement bi et donc ñoom laay dugg ci biir fekk leen ci biir waxtaan ak ñoom naka lañ gis xew-xew bi Malcom ñu dem ci biir ma xol mécanicien yi. mbokk yi comme ni ma leen ko waxee sànq gis ngeen garage bi yéen ko gisal seen bopp gis ngeen zone bi mu nekkee nekke ci Maristes gis ngeen li ko wër environnement beeg yëpp maa ngi toog nag ak samay mbokki mécanicien nekk ñu gëm liggéey ñu bëgg liggéey ma fas yéene waxtaan a ñoom ñu wax ma liggéey bi naka lay demee Baye Fall nuyu naa la. sama waay. tur bi naka la. Vieux la. Vieux garage su kan la. sama garage la. sa garage la yaa waaw noo ko tuddee. fii Daaru Salaam lañ ko tuddee. est-ce que kërub jàmm ji. kërub jàmm ji. kon fii ku fi ñëw daal jàmm. maa la ko wax ku fi ñëw dal jàmm boo léegi léegi sax bagage yi dal la kafe a ataaya jeeg lépp lay dal. mais lu lu waral ngeen taamu Daaru Salaam indi ko fii nii ci zone bi nga xam ne xoolal ñax yi ak barab bi. ni mu la demee ak ni mu ragal loo. waaw mais salaam moom boo ko yow da ngay dem ba fu bët nekk. Hmm. asam fa salaam nit ñi fekk si la waaw. mais fii nii tiitu leen fi. non franchement amuñu luñ fiy tiit nag moom amuñu luñ fi nekk di mais zone bi xalaatu leen ci ay rabak ay jaan ak genre yooyu parce que gis ngeen eh, sant bii nii li fi nekk ci ay ñax ci ginnaaw. waaw mais loolu mënta ñàkk parce que des fois jaan traversé fii dugg fii booy di ko wax mais nooy def amoo foo nekk foo jëm. non amoo foo nekk wala wala wala wala yow yaa taamu fii. no teg du question ko taamu fii dañoo amul fuñ jëm. Hmm. nekk ñu woon fii fële lañ nekkoon ci peggu taliba. peggu taliba ngeen nekkoon. fële lañ nekkoon jàkkaarloog tali ñu xëy xëy jëlee ñu fa. ah kon déguerpissement bi dalee a laal. laal nañu wala lañu nekkoon ñu xëy xëy jógee fa. Mhm. ñëw fii sanc fii bañ koy sanc nag mu tax trop métti trop mais dara di ñu gëm rek di fi di fi bay ba tey yàlla may ñu fii espace bu ndaw lañ fi amoon yaatal nañ ko ba fii fi bëgg a jëm côté bële. buux ba ci kanam. waaw buux ba ci kanam rek mu gën a yaatu rek. mais liggéey bi naka la demee fii nii zone bi. waaw liggéey bi moom ni mu demee moom mooy bu tayee mu dox bu subaa du dox boole nekk ci ay fitna yu dul jeex parce que tamit liggéey bi heure la waxtu la am na heure boo xamante ne bu jotee da ngay naan tàkk lu ko mooy borom kër yi dañ lay sonal. Hmm. ay locataire fi nekk mais ñoo sañ-sañ ñoo la fi ëpp ndogal am na heure boo xamante ne bu jotee ñeme wala na déranger. Hmm. fu mu toll ñu nootee timis da ngay bàyyi lépp. mooy fëgg da ngay arrêté non da ngay lépp ngay bàyyi. treize heures euh, midi et demi jàpp treize heures ba quatorze heures da ngay toog di la déglu. man hmm? loolu neexul. arrêté sa liggéey. Ah, arrêté lépp ngay arrêté kay bu seen heure pause ñoom jeex yow ngay door a kon daal yéen ni ngeen di fonctionner mooy da ngeen di bàyyi waale xel. dëkkandoo yi waaw dëkkandoo yi di bàyyi xel. parce que boo leen bàyyiwul xel tey ñoom ñoo fi mën a xëy xëy jëlee la fi tey ji nga jógee hmm. waaw. mais noonu bonne solution ngeen ci am. ah solution buñ ci am moom mooy ñaan suñu yàlla may ñu terrain boo xamante ni ñoo ko moomal suñu bopp titre foncier boo xamante ni tey jii hmm. suñuy ndigal moo ba nga xamante ne buñ koy liggéey duñ sóoraale dara mais fii heure boo fi liggéey heure boo xëyee yaa ngi sóoraale mais lu waral lu waral ngeen taamu maris parce que gis nañ fi yeneen koñ yu xumb maris rek moo fi des ci place. fii feneen fi place feneen fan ngay dem man yaraax laa njëkk a nekk fa laa jàngee métier. Mhm. déguerpissement bi ñuy wax fa lañ fa lañ ñu ko njëkk laalee laal nañ ñu ko deux fois te jamono jooju moo gënoon a dox fii ñu nekk. Hmm. waaw parce que maris yaraax bañ fay nekk problème boo am boo demee yaraax day faju boobu liggéey boobu la gën a dox ko léegi mais fii am na ñoo xamante ne tey bu fi yóbbu ci nangoo gaare seen seulement dañuy jàpp ne fii amul sécurité. si si loolu la jàpp. est-ce que am na sécurité. waaw ci ñoom amul sécurité mais ñun ci pour ñun am na sécurité ñun ñu fi nekk di liggéey. Hmm. waaw parce que am nañ suñu gardien daf ñuy gardé guddi gi bëccëg ñun ñu ngi fi di liggéey chaque dimanche du ñëppay ñëw mais am na ñoo xam ñu ngi assé. waaw lépp mosu leen a ñëw fekk ñu puus oto jàmbur yóbbu ko loolu mosu fay am eh, ko loolu lépp mosu fay am ah, kon daal yéen a sécurité totale ñun moom franchement parler moom ñu ngi sécurité di liggéey suñu liggéey oto jàmbur bu ñëw nañ ko gérer normal su paree ñu dem des fois nag coow client ak kii moom du ñàkk coow coow sew am ci hmm. loolu mënta ñàkk gars yi leen di fournir pièces détachées est-ce que jege nañ fi non jegewuñ fii di foncé lañ nekk wala poste jaaro dañ leen woo ñu yàpp ci moto ñu fay leen loolu it problème la parce que liaison bi gi jóge fii dem ba ba défoncé wala dem poste Thiaroye yooyu aussi day poser problème. metti parce que déjà poste fii ak poste Thiaroye yooyu rek mën nga heures de temps wala deux heures de temps. Hmm. boo jëlee péage doo dem boo jëlee ci suuf doo léegi ci wàllu déguerpissement bi aussi gis nañ ne mécaniciens yi nekkoon ci centre ville bi yëpp presque génn nañ leen zone bi ñu nekkoon mécaniciens yi tey li ñuy gën di jooy moom mooy problème mu place. te yéen loolu état bi jël lu ngeen ko xa lu ngeen ko xalaatee. waaw mais xam nga yëkkati moom nit ki boo ko dee yëkkati boo ko yëkkatee fii da nga koy naan kaay ma yóbbu la bële te ñi ñaata nit la ñuy jàngal métier di sauvé ci ay xale yoo xamante ne tey jii bu ñu leen bàyyi woon tey jii mën nañoo nekk leneen nga jël leen da gis benn nit uuf fan pile de quinze personnes wala dix huit wala vingt yaa leen yor ndékki añ reer seen transport yaa koy yor événement bu amee yaa koy def ci ñoom ëlbatiku yaay def ci ñoom xam-xam ba ñoom bu ëllëgee ñu mën a doone leneen léegi nag kon doy la problème espace yi fi nekk buñ ko tijji jox ko mécanicien yi ñu dem fa mais ñun gis nañ ay mécaniciens yoo xam ne dañuy jënd dañuy wut seen terrain loué ko defar ko ba mu rafet mais location boobu moo fi yombatul wala location boobu par exemple tey jii bu fi amee tey jii lañ la ciy teg yow du o ko liggéey mënoo koo liggéey hmm. ñun demoon nañ fii ci ginnaaw côté école Zabana di fa laajte benn terrain boo xamante ne terrain collectif fermé la hmm. mais bañ ko laajtee avance bi rek bañ ko waxee la a jël bi buy dox nag loolu du dara du cadre non du cadre liggéey buy dox mais liggéey bi tamit bu dee dox am nga ay bëgg-bëgg doo di doo di gis ne liggéey bee ngi dox rek lépp loo am bu weer bi demee deewee nga dem jox ko nit koo xamante ne daa am la rek toog di seetaan état ci war a tamit aussi. ci naka ci naka. utal ñu ay terrain yoo xamante ne ay titre foncier lay doon jox ñu ko. waaw ah, da ngeen bi daal wut ay terrain ñëw may a nekk yëpp a dañuy organiser ay réunion ak lépp Ah, am ngeen ku leen jiite nga xam ne tey booy booy dem ci mécanicien yi ci moom ngay dem direct maa ko am nañ ko boo duggee Dalifort gi am na fi atelier yi aussi am nañ nekk nañ en règle am nañ ay seen i këyit ak yëpp atelier a ngi en na fi mécanicien yoo xam ne amuy attestation de waaw ma jéngu mais lu <laughs> ko ñu ñëw fexe ba hmm. bu kenn ñemewul kenn hmm. ñu fay fayeeku sax bu ñu xel war ñu dafaa ñëw parce que tey ji boo ko bàyyi woon tey ji lu ne mën na faa juddoo lu ne mën na faa dëkk parce que ay temps yu bari si zone bi ñenn di jaar à partir de timis parce que ñeme wuñ ko ñax yi ngay gis nii bu ñax yi demee bu jóg ba muuru ci kaw fii bu à partir ci nekkee ñu doo am problème bu hmm. ne nga fay jaar mais en tant que mécanicien lan ngeen di xaar dëgg dëgg ci état bi comme ay solution non euh, rek lañ ciy xaar ah, xaaruñu ci leneen lu ndimbal jàppale ñu foo xamante ne buñ fa nekkee suñu xel day dal laaj ñu leen xaalis laaj ñu leen dara hmm. parce que lépp luñ bëgg ñu ngi koy ñaxel suñu bopp kon nag jàmm rek ñun lañ bëgg foo xamante ne boo fa nekkee di liggéey daal sa xel day daal da ngay tranquille hmm. doo xalaat ku la yëkkati doo xalaat benn jafe-jafe doo xalaat benn problème mais foo xamante ne fa ngay xëy boo fa xëyee jàpp nga ne balaa tàkkusaan a jot ñu jékki-jékki ñëw ak seen daraan yeeg seen oto yi ne la <laughs> nga nekk ci ci fitna xam nga yooyu tamit ay détails la yoo xamante ne mooy loolu daal ah. waaw loolu la rek waaye sa waay ah, waa Daaru Salaam ñëw ñoo nekk nii ak ah, kërug jàmm ji ñoo ko gisandoo gars yi ñu ngi woon fii ci Daaru Salaam nekk atelier mécanique mën naa ne bi gën a màgg sax fii nii ci Maris gis ngeen zone bi ngeen ko gisee ngeen xam ne comme ni ko waa ji waxee dox fi timis sax ay problème la woon mais gis ngeen instant bi nii biñ fi installé ak léegi nii amul dara lu fi nit di ragal tout temps ñu ngi liggéey mais li ñuy déplorer seen liggéey mooy dañoo am heure boo xam ne nii bu jotee dootul dégg ñu fëgg dara ñu nag ñoom la woon waa Daaru Salaam ñoom lañ seet si woon seen émission bii ñuy wax ni laa ko bëggee kon gars yi xaar leen ñu ci biir société bi feneen la ñuy ñëw ak yéen ci beneen facette léegi léegi léegi du yàgg